salue les internautes de Africa Global Express TV ñu amati mbégte ak contentement bu baax and ak yeen tay nak ñu daal di ñew sersi ki nga xamantene mom modi ki di Elaji borom Samina elaji Faye bi nga xamantene neena len ken ko présenter ti ci scène musical bi ndaxte nak bay na ci waram ginnaw bi nga xamantene wër ak wëré di ñoo daal di and tay mu daal di di teud ci kaw lalam ginnaw bi nga xamantene nak defna appel woo ki nga xamante ni moom moo di Youssou jigéen Ndour kooku daal koy wuyu si ci wuyu si bu am solo waral tey ñu daal di fii ñëw fas yéene séq ak moom waxtaan maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ah, di am mbégte lool ci seen teewaay bi nga xam ne teew ngeen ko di ma defal interview bi ah, sama xol sedd ci lool ma di la nuyu ma di leen jaajëfal. ginnaaw nu yooyu am solo yooyu tey wéré di daal di day ñëw. yaram bi daal dinay sutante ñu daal di gis nga daal di def benn sorte nag daal di interpellé ki nga xamante ne moom moo di Youssou Ndour ak Viviane ginnaaw interpellation boobu Youssou Ndour ba mu ko déggee tey réagir na ñu bëggoon a xam tey réaction bi Youssou Ndour def ban yëg-yëg nga ci am Youssou Ndour moom ñoo yàgg sama xarit la sama doomu ndey la tey doon nit ku baax euh, ndax dañoo yàgg depuis euh, Miami lañu woon jóge fa ba fa ni ñu formé wàllu Dakar bi ni ñu tàggoo waaye terewul eh, lu baax li muy def mi ngi koy def sama diggante moom couleur gi daal mi ngi koy sàmm. Mm-hmm. Eh, bi nga xamee ne nag yàlla dogal na problème bi am. Mm-hmm. Eh, bu mu ko yëgee ca saasi la wax Mara Mara Dieng bi nga xam ne mooy manager bi. Mm-hmm. Mara it doon ku baax koo xam ne yàqu ci dara sama diggante ak te loo lépp loo xam ne dal na sama kaw bu koy yëg ci saasi di ko wax Youssou Youssou Ndour Youssou Ndour it xam ne wul sama dara wax dëgg yàlla Youssou lu mu yëg ci man taxawoon na ca ba ci problème bii nga xam ne problème loyer bii ci kër gi nga xam ne dama ci amoon ay arrière mu dem ba ci un million cinq cent mille waaw ba mu ko yëgee la dem euh, ca agence ba ànd moom dem ci huissier bi fay ko lépp waaye yëkkati enveloppe bu vraiment jox ma ko kon xam nga ne kooku tan xam lu mu sa dara ma di ko ci ñaanal moom Mara Dieng di ñaanal gudd fan ak wér ñaanal baatam yàlla wéral baatam te lu mu man ren yàlla na moom muy moom muy Viviane waaw Viviane Sidis euh, ku baax moom it ba mu jógee problème bi ci la yabal Mbacke Dioum defe naa Mbacke Dioum manager la moom ci la ko yabal Mbacke Dioum dérangé wu déplacé wu ñëw ba fii sama kër yëkkati moom it enveloppe bu bëree vraiment sama xol sedd ci guy kon loolu foog ma wax ko àdduna yëg ko waaw te du la defal lu baax ku ko wax mu ngi noonu ku la defal lu baax ku ko wax la bëgg te yaakaar naa ni tey dañu laa delloo li nga xamante ni moom nga leen lebaloon ci xeetu teraanga xeetu baax baax waaye tey localité bi nga xamante ni fi nga dëkk muy Géejawaay autorité étatique yi ñu ngi fi te tey artistes yi tamit war nañ leen a war a mën a jàppale ci li nga xamante ne ni moom mooy seen seenupp ñaq ñuy laaj ba xam la maire ñëw na gis nga ko wala gis nga ñeneen ñoo xamante ne ay bonne volonté lañu. gis ko waaye defu ko Alioune gisuma ko waaye déggu ko téléphone sax defu ko ak ki nga xam ne mooy meeru Sam Notaire Sam Notaire muy Aminata Kanté ci kenn ku ma dégg mbaam a gis la te aussi ñoom dañoo budget boo xam ne pour culture la pour artistes yi nga xam ne ñoo dëkk fi seen gox waaye bul yaakaar ne ñoom ñaar ñi mas naa cee jot benn benn subvention boo xam ne jóge na ci ñoom ñu si ci man waxuma laa nag ma feebar àdduna sëpp yëkku ñu war a def wala ñu ma woo téléphone wala ñu mën a yónnee loolu yëpp defuñ ci dara kon ah, loolu moom doon loo xam ne lu la mm-hmm. waaw mu ngi noonu maire Sam Notaire ñu koy interpellé ci artiste bu mag bi nga xamante ni moom moo di El Hadji Faye borom Samina ak ki nga xamante ni nag moom mooy maire de la ville de Guédiawaye di monsieur Alioune Sall ñu ko ci interpellé parce que nag culture am na wàll ci li nga xamante ni moom moo di budget bi nga xamante ni nag ñu ngi koy voté kon ci kaw loolu ndaanaan bu mag bi kenn waru kaa seetaan ci rawatina mu daal di nekk ci ay jafe-jafe tey wàllum wér yaram moo la tënk ba tax nga daal di toog état de santé bi yaa ngi faju yaa ngi dem ci hôpital ak euh, médecin yi lan lañ la wax. waaw maa ngi lijjanti di dem ci médecin yi dem ci hôpitaux yi di ci defaale garabu ñaanu olof garab waaw loolu lépp nag samay lijjanti rek yaa ngi dégg ñoom nag xamuñu naka laay def ba def ko boole koog yor sama kër yor sama njaboot ni ma toogee sama kër maag yàlla rek ko xam ak yonent bi waaw kon nag euh, li ma ci dolli it mooy ministère de la culture. ñoom ñi nga xam ne ñun ñoo tax ñu bàyyi leen muy culture mm-hmm. ah ñoo doon cee taxaw taxawaay bu rafet ah gisuma seen taxawaay de mm-hmm. du ministre bi mm-hmm. du kenn ci ñoom koo xam ne bokk na ministère de la culture koo xam ne def na déplacement wala mu woo ma téléphone dégg naa sax mutuel bi ñu ngi doon woote xaw ma mutuel la xaw ma man de mutuel boobu maa koy soog a sax. si man mutuel bi woo nañ ma contacté nañ ma laaj sa numéro de téléphone sur sa ba ma waxtaanee ak ñoom dañu présenté wu ndax ne ñoom ñoo nekk ci mutuel de santé bu ministère de la culture. Euh, tey kon mën nañ ne culture bi ca lañ leen doon xaar ba tey gisaguñ leen muy ci wàllum ndimbal jàppale artiste boo xamante ni yaramam dafa sutante. waaw bi ma tëjee léegi ëpp na un toog démb mutuel woote naan sama numéro la soxla pour xawma luñ ma luñ ko doyee ndax wax dëgg yàlla koo xam ne weer ak lu teg muy faju xamoo nu ko lijjantee xamoo fu muy fajoo xamoo garab wolof nu muy def ba dem faju ci àll bi xamoo fu muy lijjantee boole kook yor këram war faa mën a régler problème te ku ne xam na ne la waykat ba waxoon ne kuy woddoo làmmiñ boo wa rafle mm-hmm. waaye kuy tankit tànkit boo tawee rafle ma dolu lu ko ci lolu mm-hmm. ah, nga bëgg boole lolu ah ak di tok di xaar ay mutuel mo mm-hmm. mutuel ma bëgg leena xamal na ne mo mutuel waaw fekk ne am na loo xam ne war nañ ma ko mën a jàppale dimbalee ma ko ma fay ci samay bor ah régler sama problème kër ah régler sama sama sama pasma, pansement man di dem ak di def samay pansement man di dugg ci àll bi di def samay garab yi olof fekkee ne yoon nañ ma ko dimbalee ak lu ma toogee sama kër nañ ma ko jox waaye man xaaruma mutuel déglu déglu ma sax mutuel te bu mutuel bi ñëwoon sama kër gii sax woote waaye bu ñëwoon sama kër sax du ma dem ci ay mutuel ndax fi mu ne ah, ba muy metti lool lool lool lool lool gisuma mutuel tey artistes yi dafa mel ni ministère de la culture mi leen fi taxawal taxawaay bi tey dafa mel ni des na ndaxte nag suñu déggee ni nga waxee dafa mel ni lañu war a taxawee dafa des. ah man de mënuma wax sama bopp daal laa xam xëy na moo am ñeneen ñoo xam ne taxawaayu ministère de la culture ah, baax na ci ñoom rafet na ci ñoom waaye man de ministère de la culture seen taxawaay ah, dëgg yàlla ah, ni ma ko gisee daal. doon loo xam ne lu rafet la te lu normal la. koppar gi nga xamante ne jox nañ leen ko ci mbas mi artistes yi tey première vague bi ba mu ñëwee ñu daal di séddale koppar googu jotoon nga ci. waaw jot naa si waaye jot bi moom di ko gërëme président ndax vraiment def na effort def na it lam man waaw def na lam man ndax yëkkati na mu am jox ko yi. kon kooku duñ def du gërëm ko di ko ñaanal yàlla benen koppar gi nga xamanteni joxat joxaat nañ leen ko tamit mu daal di toll ci ñaari milliards ak yu toftal ci suñu ay koppar ñu xaalis boobu ñi ko yor ana lan nga leen di wax bo ah, boo droit de sodaaf léegi dañ na naan ministère moo ko yor ah, ñu ngi ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci di ko kii ñu ngi ci di ko defar pour jox ko artiste yi mais ba léegi daal aw ma ci dara lu ma leer ndax wootoo ma ministère xawma ci lu ñu ne mm-hmm. waaw SODAV googu nga wax léegi nga xamante ne nag lépp lu jëm ci seen àq ak seen yelleef ba ci li nga xamante ne moom moo di ay droit d'auteur foofu ngeen ko protéger foofu ngeen bokk ci bànkaas googu SODAV ba mu yëgee sa feebar te ki nga xamante ne moo ko jiite di soxna Ngone Ndour naka lañ ci taxawee. waaw bi nga xamee ne affaire bi daane na ma sonal ma lool góorgóorlu naa ba jël taxi dem fa yëkkati kayit yi nga xam ne moom la ma hôpital jox jébbal leen ko ñu photocopier ko ah toog naa presque ay fan ñu soog may envoyé cinquante mille cinquante mille moom waxuma la dara waaye euh, doonul lu tax ñuy wax waaw ma tagati ci ay fan waaye di leen woo mënuma leen a jot non seulement que mënuma leen a jot waaye dañ ma dañ ma waxoon ne biñ ma joxee cinquante mille yi euh, bu ca ginnaaw ëllëg fii ak suba wala ginnaaw suba na joxaat affaire boobu dem naa ba di leen soññi soññi leen ay yoon. Mm-hmm. waaw wax ci réseaux sociaux yi ci lañ ma joxaat cent mille xam nga muy cent cinquante mille. Mm-hmm. waaw kon xëy na looloo fa nekk. waaw ba na du ma leen mën mm-hmm. lu bon bon def nañ éco effort. waaw ñoo tane ministère de la culture. ndax lu bon bon daan ñoom daan naa leen dégg sodaab li ñu am jox nañ ma ko. ministère nag dama leen a déggul non seulement ko joxuñu ma dara mais dama leen déggul waaw. mu nekk ay kàddu yu am solo waaye nag ki nga xamante ni moom moo di première dame fondation Servir la Sénégal Marième Faye sàll kooku yaakaar naa ni soo dee interpellé moom moo ci war a jiitu boobaak léegi tamit dégguñu la nga tudd fondation Servir la Sénégal. waaw ndax moom damaa xam ne xam na li ko war a te ku baax la ku baax a baax a baax la. Mm-hmm. ndax gis naa social yi muy def. Mm-hmm. waaw xam nga nag eh, moom dafay deful dara di ko boole ak ay wax ba tax na maa ngi ci rafet njort xam naa ne ñàkkul sax muy waaj waaw ndax eh, ndax li may faral di wax naan saako deful lu gën lu gën lu gën pepp waaw saako deful dara lu gën saakub ceeb deful dara lu gën saak lu gën ceeb. kon nag ah ma di ko ñaax rek di ko xamal ne ah la ci réew mi laa dëkk. te itam lu gën a jege gën a yey. waaw. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mbokk internet yu Africa Global Express TV di leen jox dig daje ba beneen laata loolu rek ñu daal di lay bàyyi nga tàggatoo ak ñi nga xamante ne nag ñoo doon lay seetaan. waaw man leen tàggu rek di ñaanal. gudd fan ak wér ñu yàgg ko fekke leen leen xamal ne sama xol sedd na ah ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi suivre nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak fépp fooy mën a ne maa ngi nuyu di la sant di la ñaanal gudd fan di la ñaanal yàlla musal la mbas mi muccal la waaw ak fooy mën a ne ci bitim réew yàlla leen yàlla joxe xéwal mën ñibbisi ci réew mi toog seen ak njaboot investir fi waaw di ñaanal euh, sud bi euh, Africa Global ñoom ñu yàgg euh, def seeni démarche mm-hmm. yàgg def social comme ni ñu ko defee mm-hmm. dinañ ñaanal it ñu dégg leen fépp ci àdduna bi ñu dund ba yàlla def ñu ubbi seen chaîne de télévision jërëjëf